mouchoir des mouchoirs hygiéniques donc ñu ngi leen ci remercier ci xalaat bu rafet bi ngeen def di aussi nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la parce que lii day euh, tax nit ñoom ñu xalaat ne am na ñu nekk ci biti ñu ngi leen di xalaat doote ñu ngi ci kase bi am na ñu def am na ñu deful mais ba léegi ci ñun lañu bokk ñu war leen di xalaat di leen jàppale euh, ki ko faral di def comme yéen euh, muy Adama Diop su ma xam ne chaque weeru koo defi indi ndimbal bu bëree bëri bëri ah yéen aussi ay ngeen mm, inspiré wu euh, donte seen doole tollul noonu mais xalaat ngeen ci ne war ngeen mën a jàppale ñii ah, ci seen doole donc ñu ngi koy rafetlu di leen ñaana aussi yàlla yokk leen yàlla jàppale leen lépp lu ngeen ci nam aussi yal na leen ko yàlla defal ci barke yonente bi. daje bi li ko waral mooy dañoo ñëwoon

comme que doole bi bariwut waaye liñ mën def nañ don yi ñu ngi fi indi ay blouson 30 blouson lañ fi indee ak euh, lait de corps ak euh, kit serviette hygiénique pour les femmes parce que comme que amicale bi c'est amicale nationale des femmes ASP moo tax ñu xalaat ne jigéen ñi fi nekk te war nañ leen mën a jàppale même bu fekkee doole bi bariwul